course ngir ñu man koo xeex mu jóge ci réewum Sénégal moom Macky Sall ni ki démb ci yéenekaay gi di réew mi quotidien daan nay tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum cérémonie ci réew mi journal bi daan ñuy wax ne Sénégal ñoo ngi jàng ana nan la ñuy dundee ak ñaareelu wàgg bi yéenekaay gi di Vox Populi nee na en tout cas li am ba des daal état d'urgence couvre-feu bi nga xam ne ni ki démb andi nañ ko ci Sénégal taxoon na ñu bari ci askan wi doon dund ay jafe-jafe yu métte métte métte jaanama lañ doon dund kaaw dëgg moo am ni ki démb ci Ndakaaru ndax lu soxal wàllu dem bi ak dikk bi embouteillage bi kenn munta dem kenn munta dikk ñu bari ci askan wi doon dund ay jafe-jafe yu métte métti waaye nag ci guddi gi tamit taroon na loola taroon na loola ndax bëri na ay quartier yoo xam ne ndaw ña fa nekk dañoo lànkoon kandaare bañ respecté li nga xam ne mooy dem tëri vingt et ñenn ci ndaw ñi dañoo jàpp maanaam mesures yi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko tegu ko fànn yéen kaay gi di réew mi quotidien Tribune L'As Vox Populi Source A Les Échos L'Observateur Enquête Sud du Quotidien ñu xëy jàngee fa ne couvre-feu bi nga xam ne ni ki démb door na ci réewum Sénégal bëri na ay ndaw ndaw yoo xamante ni respecté wuñu ko woon ndax ay quartier yu bari ci mi tàngoon na fol loola yéen kaay gi de la Soleil ñu xëy fekk fa njiitu Sall nee na lu jëm ci wàllum état d'urgence ba couvre-feu bi nañu respecté li nga xam ne mooy mesures yi bu ñu nag yox-yoxi ci mbir mi Macky Sall nee na bu kenn yox-yoxi ci mbir mi par force askan wi danañu respecté li nga xam ne mooy état d'urgence bi amul lenn luñ ci deltu ginnaaw bu 21 heures jotee ñëpp danañu tëri te mboolem loo xam ne ay mesures barrières la askan wi danañu ko respecté ci nii wala ci naa loolee kàddu yu Macky Sall la ma ngi ci yéen kaay gi de la Soleil yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien L'As Vox Populi nee na en tout cas li am ba de sàll démb Médina Grand Yoff ñaari tali Parcelles Assainies Pikine Patte d'Oie Guédiawaye tàngoon na jër ci guddi gi ndax ay ndaw ñoo jóg di révolté wu yéen a kaay gi na commissariat bu Pikine ginnaaw raay sax ndaw ñu dañu ko songu daal koy saax-saaxee waaye nag du Ndakaaru rek ndax gox bii di Thiès bëri woon na ay manifestation yoo xam ne amoon na fa li am ci yéen a kaay gi de la sa mooy Jurbel soo mooy tuule danañu ko tëcc ndax cas communautaire yi ma nga fay gën di yokk ñeent ci ay cas communautaire nemmeeku nañ ko tuuba yéen kay gi di Le Quotidien nee na Diourbel ak Kaolack ak Matam jamono ji maanaam coronavirus ba ma nga na fa cobbaye xanaa Ndakaaru ak Thiès la ñu yàpp yéen kay gi di Walf nee na décret présidentiel bi nga xam ne président Macky Sall sife ko ngir lu jëm ci état d'urgence ba couvre-feu Sénégal ñenn ci ñoom rawatina ndaw ñi dañu ko xotti traite dañu ko xotti sànni ko ca àll ba ndax démb manifestation yi bëri woon na loola yéen gi di Les Échos nee na Ndakaaru démb maanaam ma ngi doon jax-jaxi ndax ay pën la ndaw ñi génn génn taal ko lànk ka bañ a tër yi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa maître El Hadji Diouf nee na ni nga xam ne moom lañ doxalee lu jëm ci état d'urgence bi couvre-feu bi maanaam tegiwul fenn bu ñu koy jël nañu ko jël ci Sénégal gi yëpp moom El Hadji Diouf ni ki démb danoon janoo ak tas ko do xabaar yi nee na Macky Sall fii ak 2024 bëggu see amal ay élection waaye nag loolee duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg su ko jaree sax danañu dem ca CEDEAO moom maître El Hadji Diouf daat nay dal ci kaw Ousmane Sonko nee na Sonko jaadis yi la fi nekkal wax ne ne Sonko ku bëgg xaalis la waaye tamit na ab magu la yéenekaay gi délibération nee na lu jëm ci wàllum loi état d'urgence bi danañu ko voté altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmale jamono ji sax mën na ñoo wax ne maanaam doole jépp ma ngi ak Macky Sall mbooleem pouvoir yu am ci réew mi jamono ji Macky Sall la ñu ko jox yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy ci mercredi du MEDES niki démb ñu ko doon amala ci yéenekaay gi ñu xëy fekk fa président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite kuréel gi ëmb ñu ñi nga xam ne ñooy ay membre am daat nay wax ne ne atum 2020 bi bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne am àdduna bi am na ci réew mi waaye nag téewul ñi nga xam ne ñooy waa MEDES ñoo ngi wëyal seeni action jëm nag ci wàllum innovation de l'intelligence artificielle ak lu soxal wàllum écosystème 2021 ñoom daal jàpp nañ ne 2021 bi lu jëm ci wàllum écosystème ak innovation de l'intelligence artificielle danañu ko gën a jëmmal danañu ci gën a xar seen tànk tubaya yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu at mu yees muy commencé waa MEDES dañuy dajaloo daal di def soirée de vœux ba tey ci biir journal bi nee na kuréel gi ëmb entreprise Sénégal ñoom daat nañuy wane li nga xam ne daal mooy seen dimension citoyenne sociale et humanitaire yéen kaay gi daan nay wax ne lauréat prix de meilleure start-up ñoom jot nañu seeni chèque niki démb yéen kaay gi délibération nee na Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne moo jiite woon ONAS niki démb daal dinañu koy tëbale journal bi du Source A nee na maître Moussa Diop mi nga xam ne tëbale woon nañ ko Dakar dem dikk président Macky Sall jamono ji dafa bloqué li nga xam ne mooy ay indemnité ma yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ci les jeudis de l'économie ñu xëy fekk fa Bassirou Abdoul Kam mi nga xam ne mooy coordonnateur du parc des technologies numériques du Sénégal wax na projet boobee nga xam ne la financement bi toll na ci quarante six milliards daan nay wax ne lu toll ci trente cinq mille emplois mën na ko créer direct ak lu toll ci cent mille emplois indirects wax na projet boobee ana nan la mën a dugalee loxoom ci lu jëm ci wàllum suqalik Sénégal ci lu soxal wàllum kooma yéen a kaay gi di sunu làmb xëy na ci combat yi nga xam ne Balla Gaye numéro deux bëri na ko ak combat yi nga xam ne moo ci gën a gaaw journal bi nee na digganteem ak Modou Lo vingt et un secondes la ko